2021. Diaspora 221. Pour retrouver toutes nos informations à chaud comme à l'accoutumée, tapez www.diaspora221.tv et optez pour des informations fiables et vérifiées. di la ko jaale parce que ku nekk xam na sa digganteeg waale ku nekk xam na sa digganteeg famille bi lu doon la laaj ci quelques mots lan ngay mën a wax. métti mm-hmm. na liggéey bi ñoo xamante ni kuréel bu mën ba. fekk mm-hmm. mm-hmm. na ñu ci xam ne nii. liggéey bu jàngale la. dëgg la. fekk na jigéen ñoo xam ne nii. ku bëri sutura la. ku baax la ku bëggoon ak njabootam. koo xamante ni bëggul dara naqari boobu doo jur waali dëgg la de. Mhm. waaye dafa jël waali. Mhm. lii nga ko Sénégalais yi. Mhm. boo ko waxee mu ne man juruma waali. ñëpp xam nañ ne waaye yéen ñi waaye yéen yéen ñëpp a ko jur waali seen dëgg la. ku baax la daal ku ñëpp xam nañ leen am na solo Adama ci doom de Paris bi. ndeysaan. ndeysaan kon waxtaan mu ne ma nit ku baax nga yow tamit. li nga def sama doom ji moo tax ma bëgg la. daanaka ko bëgg la déjà waaye dafa am solo ak ñoom. parce que lépp taw lépp da koy yàq coow mu di waxtaan. mu nekk ku oyof koo xam ne njaamu yàlla rek mooy mën nag mu lépp muy taar taar ak lu muy yàgg yàgg mu waxtu julli jotee dafay bàyyi lépp dem guddi ñëwaat. amiin. loolu dañu yàlla koy guddal bu jëriñ. amiin. waaw ah, nit ku baax daan dem desal ba nga yëgee dese bi nan la def ak foo ko yëgee. waaw dese bi dafa doon nelaw. dëgg def na dafa faram-baari. xam nga ma mel ci yow mel ko ci laam. Hmm. Sénégal dañ ko xam réew mi xam ko. maanaam laali dafa bëgg aadama toog rek mooy a ko la yaay ñëpp la comme niñ ko waxee rek. tey wuyu na ka nga xam ne mooy jëkkëram Thione Seck wuyu na doomam même pas mois mooy soxna moom Momy Seck ñu leen ñu ñaanal yàlla yàlla xare leen àjjana Adama loolu tey ban jàngat nga ci am ban jàngat nga ci mën a def. waaw jàngat bu ma ciy def moom ñu delloo suñu xel ci yàlla rek. moo tax ban information nga mën a jox ci Wally actuellement ban information ndax am nga information ba nga xam ne mun nañ ko am tey ci yi na mu nekkee foofu. waaw information ci kayit yi di lijjanti wax ko te xam ne ne moom génnee bitim mooy ab kayit yooyu day xaw a day mën ko parce que dama toog rek di incha ko du ma Sénégal mardi incha kii ko waa kay Adamo ñu ngi lay jaajëfal. merci. Diaspora 221. Pour retrouver toutes nos informations à chaud comme à l'accoutumée, tapez www.diaspora221.tv et optez pour des informations fiables et vérifiées.